Euh, donc euh, di ngeen may ma tamit ñu nuyu sëñ Mountakha Bachir Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi lool te gën a wér di nuyu suñuy autorité administrative préfet ak sous-préfet de Ndam autorité sanitaire yi avec le médecin chef de région ñëpp ñu ñu bokk liggéey bi bokk ci district sanitaire bi muy personnel bi euh, les hôpitaux le personnel du district ak euh, relais communautaire yeeg bàjjenu gox yeeg ñëpp ñu ko bokkal mais surtout aussi suñu partenaire technique yi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ba yombalal ñu liggéey bi euh, ku lim ndesal moo tax waaye ku ci nekk dina ci gis sa bopp boo waxee no partenaires yi ñu jàppale euh, di nuyu aussi waa comité d'organisation Grand màggal ndax ñoom ñoo organiser seen màggal ñun en tant que équipe technique dañu ñëw pour les encadrer les appuyer waaye euh, wax fa dëgg yàlla ñu ànd ak ñoom liggéey bu rafet euh, surtout commission santé li nga xam ne moom la sëñ Cheikh Abi ji jiite ak euh, unité d'alerte bi avec le professeur Lamine Gueye ànd ko aussi ak daayiratu Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne ñoo nekk biir grande mosquée doon vraiment un point épineux yooyu yëpp daal ñu ànd ko def ko ba mu rafet sur euh, si jiitalu ministère de la santé le médecin chef de région ba tey jii ñu am euh, lii ñu am comme résultat résultat bi muy ñu am vraiment gis ne kaa yi ni ñu ko doon yaakaare malgré risque bi ni mu réyee woon gis nañ ne y a pas eu beaucoup de cas lu tey ni màggal ñu def lu mat 72 tests ñaar lañ ci am ñett yu positif donc muy vraiment sant bu rëy te it cas suspect yi ñu doon gis yëpp biñ leen testé gis nañ ne du woon doomu jàngoro bi te yeneen maladie yi tamit ni mu daan baree yaatu lu si bari ren wàññeeku na euh, duñ ko mën a tas fii yëpp waaye ci présentation bi nii léegi pour wane ne lépp liñ ci am euh, bind nañ ko càmbar ko bind ko ci kayit ba xam lan lañ fi gis lan lañ fi am ci accident lan lañ ci am feebaru xol feebaru jabet feebaru accident yeeg xeet yooyu yëpp tënk nañ ko ba am ci ay chiffres yu leer bind ko ci kayit donc dispositif bi comme ni ma ko waxee rek euh, dispositif bi dafa bari woon ay commission yoo xam ne tegoon nañ ko ci wàllu fagaru bi ci wàllu fegu bi ci wàllu yee askan bi ba gën a góorlu mais tamit ci wàllu détection fexe ba euh, nit balaa bu feebaree ñu teel ko xam teel ko jël en charge mais aussi ñi nga xam ne dañoo yaakaar comme ni may waxee ne dañoo feebar il faut ñu def laboratoire laboratoire bi nag bari na lu muy càmbar waaye ren bu ñuy wax laboratoire moom ñëpp seen xel ci Covid la doon dem te loolu bu mënee nekk laboratoire Pas Institut Pasteur moo ñu si jàppale ren biir Touba rek amoon nañ cinq plateformes RTPCR muy loo xam ne yombul woon ba pare ñu indi lu ay lu ëpp a junni test si rapide donc fu nit mënti nekk si Touba boo nekkee cas suspect bi ci saa si ñu mën la defal TDR ba pare am ñu ñëw defal la prélèvement yóbbu ci plateforme bi ci saa si résultat bi génn donc muy loo xam ne tax na nit ñi doon ñëwoon yàgg ci bërëbu fajukaay yi ci saa si ñu xam bu dee Covid bu dul Covid donc wax fa dëgg yàlla daal muy organisation bu huilé bu leer ñëpp taxaw si jàpp si euh, ba ñu am lii ñu am mooy résultat yi ñu leen wax ñetti kaa ci jamonoy màggal gi yëpp xam nga ne loolu du dara par rapport ak risque bi ni mu tayoon donc ñuy sant yàlla di gërëm ñëpp ñi ko yombal euh, pasteur ñoo doon def euh, diagnostic bi waaye am na ñu doon def sensibilisation bi am ñu doon indi mbalaat ci sebak yi donc vraiment ak docteur yeneen leen di seet ak lépp yi nga xam ne daal yëf yi daanaka c'était une chaîne ku nekk am ci lu mu jàpp ba ñu am lii ñu am di ci sant yàlla bu baax di gërëmaat vraiment commission bi nga xam ne ñoom lañ ko àndaloon ba am si lii. waa loolu tamit ba fa dëgg yàlla xanaa ñuy ñaan ndax euh, ci màggal gi ñun def nañ sensibilisation waaye euh, li ko gënoon li ñu gën a dimbali mooy ndigal gi sëñ Mountakha Bachir Mbacké joxe woon euh, moom ci boppam mu jiitu ci takk masque bi. Euh, indi utloowu ay masque yaatal ko ba mu yomb ñëpp donc ba nit ñi taxaw ci donc ñun bu ñu ñëwee daanaka dañuy dolli rek waaye moom la mu waxoon doy na sëkk euh, léegi nag day mel ni xam naa résultat yi ñu am nga xam ne kawe na njort tax na nit ñi bëgg wàcce seen loxo waaye ñu ngi ñaanaat ñëpp ñu bàyyi xel mesure barrière yi ndax bu ñu xoolee li xew Europe fi mu ne nii te Touba centre nit ñi dañuy tukki di dem di ñëw tant que Covid mu ngi am feneen génn guñu ci ci ci risque bi donc wax fa dëgg yàlla ñuy ñaaxaat ñëpp ñu gën a respecter mesures barrières yi ba tendance baissière bii ñu am muy lu dëgg ñu ñu continuer ko ba sunu borom génnee mbas mi si àdduna bi yëpp waaw comme ni ma ko waxee rek bu ñuy wax dispositif sanitaire du risque Covid rek lañ doon xeex risque global feebar yi nga xam ne du wàlle feebar yi wàlle accident yeeg yëpp donc lépp loo xam ne rek day laal wérgu yaramu nit risque boobu da koy jël teg ay stratégie euh, sant yàlla pour Covid bi liñ ci activités yi ñu ci def am nañ ci lii ñu si am mais am na yeneen maladie yoo xam ne tamit parce que nit ñi am na ñoo xam ne dañoo amoon feebar ci màggal gi dajaloo beeg tàngoor bi mu sonal leen mooy li ñuy wax coup yi bari na si ñi xam ne seen yaram yeeg yax yeeg yoon metti ak tension yi feebaru xol yeeg yooyu mais au moins fépp fexe nañ ba barabu fajukaay yi jege ba fu nit nekk mën fa dem faju ñu jël en charge garab yi disponible cent pour cent ñu jox leen wax fa dëgg yàlla c'est une prise en charge gratuite léegi nag Covid bi moom moo ëppoon doole ndax moo yóbboon fitu ñëpp ba ñu def si lii mais yeneen yi tamit bàyyiwuñ leen woon donc ni ma leen ko waxee donné yi mënuma wax nii rek bu ci nekk ñaata la am mais ci présentation bi ñu leen wan léegi gis ngeen chiffres yi exactement ba ci bërëbu fajukaay bu nekk lañ fa gis ci nit ak xeetu jàngoro ya fa amoon yëpp. léegi nag loolu day wane nekk ba tey yeneen feebar yaa ngi fi ñuy ñaan nit ñi ku yëg dara sa yaram. nga dellu si si nga dem ci structure yi ñu jël la en charge te bàyyi xel prévention bi prévention bi nag dara jiituwu ci vaccination bi euh, CPN yi jigéen ñu wérul yi dem seet seen yaram ku ci war a am doom ñu ñaan la nga dem ci structure de santé yi fekk fa ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc seen ci loolu mooy sage-femme yi ñu taxawu la ba nga mucc si jàmm sa doom tamit mucc màgg baxkeel comme ni ñu koy waxee euh, ku am yeneen doomu jàngoro tamit mooy jabet ak tension ak yooyu ñu ñu ñaan ni ñu duñ dem ci structure yi te xam ne disposition yi ñu war a jël pour maytu nit ñu wàllante mooy port de masque bi teg lave-mains yeeg respecter distanciation ñu ngi ciy jéem kéemtalaay kàttan pour wax fa dëgg yàlla ku fa ñëw indi fa sa jàngoro ñu fajal la ko te nga bañ fa jëlee leneen ñuy ñaan ñëpp daal ñuy dellu si waat ci structure yi faju